السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi leen di nuyu baax di jiital ci nuyoo bi sëñ Mouhamed Mbacke di ko nuyu baax di nuyu mbooloom mi li ñu yëkkati nag day lu mënta ñàkk rek ndaxte ñu ngi koy yëkkati ci baatub daayira bi mooy daayira wakkaana xaqan Touba Kër Moussa ñoo jëwoon fii ci màggal gi di siyaar si seenub sëriñ di ci ñaanal wajuram wa sëñ Abdou Mbacke mi nga xamanteni mom moom la nekkaloo ndoon fële ci Touba 50 ñu koy ñaanal bu baaxa baax yalla yok ay leeram ñoo ngi ñaanal mbolo mi nga xamanteni ñom lañ andal ñu bok ci daayira bi ndax tak mbolo mom manam euh lu njit la man rek mbooloo ma ñoo ko ci dooleel kon nag ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal ci liggéey bi ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax ñoo ngi leen di sant ñoo ngi kontaan ci yéen ci jiital gi nga xamante ni moom ngeen ñu jiital ñoo ngi leen ci ñaanal bu baax a baax a baax ndaxte kat ñoo gis seen yéene ak ni ngeen ni eh, amee yitte ci daayira bi ñoo ngi leen ciy ñaanal bu baax a baax a baax xanaa sax leen waroon a jiital sax mooy sëñ eh, maanaam ki nga xam ne moo di Abdoulahi Wadd mi nga xamante ni moo yor euh, ci bopp euh, kii KMT KM bi euh, mu am yéene ñëw fii ci Touba ànd ak ñun liggéey bi moom tamit ñu koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal li nga xamante ni moom la yéene mu am ci lu kawe njortam ba xam ne rajoom bi ñu ngi koy dégg fu nekk ci àdduna bi. ñu ko ko ñaanal bu baaxa baax ndax tamit wax di yalla and na and na akuk bëgg and na jitté tamit ñu ko ci ñaanal bu baaxa baax wax di yalla ñu ngi lay ñaanal bu baaxa baax xana kay maanaam man nam ñu gàttal ko noon rek bu ko defee ñu jébbale kaddu ñoo ngi tuub bu baaxa baax nak